Kau ma wax nag waxtaan naka sunuy njiit wala waxtaana ko sunuy njiit bu ko waxee bu waxtaanee li wax la def bu waxtaanul li ñu war a def li wax la ñu def parce que bi lu la lu ne da nga c'est normal gars jël si ay mesures yoo xam ne mesures d'accompagnement yu lay doon ndax am ay regroupement si transporta transport ak yooyu surtout foofu si la wàllaate bi di gën par rapport ak tay ji ni bu ñu jël woon mesures yi ndax mesure yi ñu jël ni baxna mais tamit mesure yi dafa war am accompagnement yu muy andal ñu ngi dem Dakar di ñëw parce que mënuñu c' est vrai que ni gaay nañ confinement mais bon c'est vrai que ni aussi tamit dëkk bi nu muy doxee mënuñu tok ci kër yi à 100 pour faaw ñu gën dem li jël suñu bop daal di teel a ñëw ñu bisiwaat. ñun moom liggéeyuñu dara amuñu dara lu ñu liggéey parce que da ngay def benn voyage ñaari wess journée bi ma ngi ni taxaw ben wess la def ñew xawma ma dina yebatam fek heure bi mais lu mu meuna don doon dañu koy muñ comme ni ko ñepp muñé wante nak dégg naa développer ne ay milliards war ko jox transporteur yi war na law ba ci chauffeurs nak parce que chauffeurs nak ci yef yi lañu dé de xaliss fuñu ko mën génné ci Sénégal ñañu ko jox duñu ko joxé fokk ñu sàkk ci pexe yi. de un chauffeur yi ñoom ñuy calculer maanaam nombre de places yi te nombre de places yi bu fekkee dañ ko wàññilu te répercuté wu si gasoil bi ñuy sol par ngoon nii de un ñoom duñu am versement ci oto yëpp ay versement la ñuy liggéeyee léegi nag loolu dafa laajoon ñu waxtaan si su ko fee ñu trouver terrain d'entente même bu ñuy subventionné gasoil bi sax pour un moment benn benn benn certain moment nii sax laajoon nañu subventionné ko pare quoi mais jékki-jékki jël ay mesures tamit ne de places te gasoil fi mu nekkoon la nekk ba léegi loolu day indi ay complications. effectivement effectivement changement bi moom ñëpp ko sentir parce que déjà li nga doon fay euh, benn da nga koy fay à la limite sax trois fois hein, à la limite parce que donc ñun ñëpp gis nañ ne paas yi yokku na et puis même non seulement pas si yokk mais trafic aussi dafa feu a doy parce que pour que nga am oto c'est tout à fait un problème donc euh, pas si moom kenn mënul ne yokul bon man de en personne mom yëg parce que li ma don fay ben actuellement maa koy fay ñett. carte la won ñuy may fay 1250 non 1200 nous fay deux deux personnes deux personnes est-ce que man nañ ko yebee 1250 comme comme liñ ko don yebee lool la dama lay la laaj bi est-ce que lool mën munul nekk kon lii 2500 yi 2000 euh, xam nga 2200 yi foo nu def ko munu ko defal duñ ci génn dug coxor nag dug coxor danoo amul pexe te mënunoo toog clients yi amuñu pexe pour toog. waaw bu njëkk ba ñun set suñu oto yi set lay jël a chauffeur bi muy huit mais léegi wane est def ko léegi cinq cinq places léegi la ñuy jël quoi te loolu tey ji lañ ko commencé ndax démb mënuñu ko woon def nax amna mesure yo xamne buñ ko indé automatiquement do xey rek bëgg def li li nga daan def il faut nga jël ci ay mesure d'accompagnement yo xamne bo ñëwé def dina arranger client yi dina arranger yow mi di liggéey en même temps quoi ñun mom wa yoku ñu passe quoi mais 5 places yi légui dañ ko compenser selon li client yi doon fay quoi nombre de places yi xamne mom la ñaan yeb comme par exemple bu daan yeb 7 places ñu ñu réduire ko ba def ko 5 places fofu légui dañuy am lu ñuy compenser par exemple fu dé am na ko daan fay 150 la daan 200 ngay fay bu dee 200 ñu ne la 250 ngay fay c' surtout pour mën a réduire yeneen places yi nga ne tey jii wàññi nañ ko ndax loolu tamit bu ñu ko deful ñun duñ si génn ndax gasoil lañuy lakk te gasoil bi tamit état bi wàññiwu ko. yoruñu matricule Thiès ak DK la ñu yor waroon nañ ñu mën a tolloore bàyyi ñuy dugg parce que ñu yoruñu matricule Thiès moo yoruñu matricule Louga DK la ñu yor war nañoo maye mën a may mën a may ñuy jàll. waaw mesure d'hygiène yi booy xool tey jii depuis affaire bi comme commencé am ampleur ba léegi ñun dañoo jël suñu mesure d'hygiène quoi loo xusee masque bi ma indi nii chauffeur yëpp jox na leen masque kii nii muy grand bi moo yor antiseptique yi eau de javel yi oto bu gaare bu nekk avant muy yeb client dina la defal antiseptique désinfecté oto bi après doo ko wax client ñuy yéeg ku yéeg kii toogee gos ki toogee droite ba kenn du ñu laalante am benn kii bi quoi bi Euh, non seulement bu ñu yokkee paas war nañ mëna a au moins sax donc auto yi circuler normal bu ko défé ñun ñi nga xamné ne euh, dañuy xey di wacc ñu mëna donc délu suñu kër yi euh, lu mu gën a gaawee balaa vingt comme ni ko waxé mais c'est malheureux des fois da ngay wacc bëgg ñibi sax do gis auto bu la yóbbu c' tout à fait un problème ah. amoon ñuy dajaloo c'est parce que mesure bi tay ji par exemple buñ né auto oto sept places la doon def légui ñu réduire ko def ko légui 4 places légui yow lolu day indi manam dajaloo manam auto bi bu doon wàcce wañi ay place légui ay place am day wàññeeku bu doon yokk ay place ay place am day wàññeeku léegi bu waree yeb sept place bàyyi fi deux personnes bàyyi fi yeneen deux personnes par exemple ñooñu tamit dañuy gën a bëri te avant daawul demee noonu dañuy ñëw yebandoo rek ñëpp ñëpp dem